Euh, asalaamaaleykum euh, wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen ziare di leen jaajëfal bu baax a baax ci site bi ngeen xam te ni yéen koy ànd ak ñun mooy seen site bi di Khidma 28 TV télé bi nga xam ne moom moo leen di toppal tànki sëriñ bi. Eh, macha allah di nuyu bu baax kilifa gi muy sëñ Balla Mbuub eh, ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jaaree di nuyu bu baax eh, sëriñ Xaadim sunu caméraman di nuyu bu baax mbooleem mbokki taalib yëpp rek bàyyiwunu kenn dëpp ci suba ba léegi niñ ko defee rek macha allah léegi rek dañoo jóge ci kër sëñ Bay Ngiraan boobu léegi jóge nañu ci waañ wi tey nag ñu ñëw fi fekk fi sunuy mbokki taalib yi macha allah di nuyuwaat bu baax a baax suñ eh, sëñ Mountakha Cissé comme ni ma ko waxee léegi daanaka moom sax eh, am na lu mu leeral ci bis bi ndax nee naa leen bisub sëñ Mor Mbaye Cissé eh, ku ne am na ci yéene di nuyu bu baax soxna Ndeye Bousso soxna maam Bousso Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax Mbacke Balla di la jaare moom sëñ Abdou Fata di nuyu bu baax soxna say Mbacke ak mbooleem ñi mu àndal ñëpp rek bàyyiwunu kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare tey nag xam naa sëñ Xaadim dañoo am mbégte ak kontaan waaye di nuyu baax mbooleem ñu fi toog ñëpp rek rek bàyyiwunu kenn tey nag euh, ñu ànd ak sunu mbokk euh, euh, sëriñ sëñ Mouhamadul Bassirou Cissé eh, macha allah tey mu tënkal ñu nag li nga xam ne moom lañu ñu moom moom moom la ñu am fii ci bis bi ak taxawaay bis bi kan mooy sëñ Mor mbay Cissé ak li nga xamante ne bi moom mooy bis bi nga xam ne ñu ngi koy amal at mu jot waaye bala maa sori kan mooy sëñ Bassirou maa ngi lay jaare bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa mawala wa jaal kalaami rachida wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu uh, ñu ngi lay wax waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatu di rafetlu sa teewaay uh, ak kàddu yu rafet yi nga xam ne moom nga ubbee jataay bi di sant it ak a nuyu ak a ziara sa caméraman euh, di ñaan suñ borom jéego yi ñëw yi ak yooyu dem yëpp suñ borom euh, def ko muy taw tawféex ju yaatu yaatu ci barke borom bis bi sëñ Mor. Euh, kan mooy sëñ Bachirou na Bachirou as ndongo la rek jullitu bi yàlla la di taalib Serigne Touba feeñ ci diggante ñaari waajur Serigne Makhtar Cissé. moom sëñ Modou Cissé defe naa sëñ Mat Cissé moom mook sëñ Modou Awa Cissé ma ca sur rañoo bokk waajur bu góor ak bu jigéen ci tënk rek euh, sama waajur bu jigéen ni soxna Ndumbe Jenn Thiaw euh, ci loxob sëñ Abdul Hakim nag laa jaar moom sëñ Mouhamadul Bachir ba 2011 ci laa wàcc maa ngi yëngu nag ci secteur jàng ak jàngale incha allah bisimilah. Euh, sëñ Basiiru euh, bisu sëñ Mor mbay Cissé bi mën nga ñoo leeral sama classe yi nga xam ne xamuñu kan moom sëñ mooy mooy sëñ Mor mbay Cissé mën nga ñu cee leeral tuuti ñu doog ñëw lan moo waral bis bi. waaw xam naa day bala ñoo ñëw sax ci boobu laaj dañuy nuyu ak ziyaara sunu mbokk yu tedd yi ñu seqal jataay bi muy góor yàlla yi ak soxla yu tedd yi macha allah ñii ci sama wàll kii mooy sëñ Mouhamadul Fadal Cissé di kenn ci kër gi. moo sëriñ Abdoul Ahad mais di doomi sëñ Jëmb siise moom sëñ moor Mbay siise mu mag ma biñ tuddee moom njaareem mi ak Cheikh Mouhamadul Bachir euh, Cissé ñoom ñëpp waa kër sëñ Njëmb mu mag ma la sëñ Njëmb moomu doomam dañ tuddee sëñ moor mii di borom bis bi tey waaye ki ñu war a jiital nag di sëriñ euh, Abdoul Ahad di sët ci sëñ di ko ziyaara di ziar rakkam tam sëñ Abdou sëñ Abdou euh, sëñ moom it mu ndaw euh, di leen jox seen wàccuwaay waaye suñu suñu jur bu tedd wee soxna Ndey Bousso ko ni nga ko waxee léegi ak soxna Say ak njaboot gi yëpp waaye suñu kenn suñu su suñu suñu suñu lépp muy sëñ Mouhamadul Mountakha mii toog nga xam ne suñu wóolëre la sunu mbokka sunu xarita suñu lépp la lu ñu nekk ma nga ca lum nekk yit ñi ngi ci moo tax at mu jotit lépp luñ nekk ndeem soob na yàlla dañ koy bàyyi ànd ak moom bés bii ba mu jeex moom it lu ñu nekk yi noonu la koy àndeek jun rek di ñaan suñ boroom dëgëral ko bàyyi ko fi lool ba yéene ju baax ji way juróom mu amoon sëñ Abdu mu matale ko ci sagoom mook ñu mbokkal ñëpp barakati Cheikh Khadim tontu ci sëñ Moor nag dana yomb waaye dana jafe ndax li tax muy yomb mooy daa fekk rek lañ cay wax doon luñ xam nit buy wax lu xam war naa mën a yomb dana jafe nag ndax sëñ moor jëmm joo xam ne dafa bokkoon ci niti yàlla yi yu mag yi te dañoo gis ci benn téere benn boroom xam-xam di wax sëñ Moussa Ka sax maa ko fay tudd ne xam yàlla li muy jafe-jafe moo gën a yomb xam nitu yàlla te sëñ moor moom laa chàkk ne nitu yàlla la woon kon wax ci moom boo sukkandikoo ci noonu moom day doon du jafe waaye lañ ca mën a tënk rek teg ko ci xayrul kalaam yi maa la wa la mooy wax ju gàtt te tegtale lu ñu mën a jariñoo ba déwén ak jàmm incha allah mooy na sëñ Mor jullitu yàlla la woon bu nangu woon lool doon gim doon jaamu bi yàlla di ko jaamu te bokkaaliwu ko dara waaye doon taalibeeb sëñ Tuubaa boo xam ne musta yamale sëñ Tuubaa ak dara moo nekkoon léppam ci lépp waaye fexe woon nag ba am lanteeg julliti yàlla yépp ak ñi dul ay julli sax am lante ba nga xam ne mooy tax mu mën a jariñu mën a jariñe kenn ku ne it la la la la yàlla sant ko mu jëflante ko yow ci njëkk mu doon ko def ak yow ba jóge fi tool bi mu nekkoon nag di ca liggéeyal yàlla mooy tool bi gën ci tool yi ñuy la liggéeyal yàlla mooy alxuraan dundam gi yëpp alxuraanul karim la feeñ ci diggante ñaari jur yu baax muy sëñ Masamba Siise sëñ Ibrahima mooy sëñ Njaase xëy na Njaase la ñuy wax waaye tur wa dëgg-dëgg Ibrahima la woon di doomi sëñ Mouhamadul Makhtar Cissé bokk ci askan wu tedd woo xam ne sëriñ Touba yàgg na leen a kañ lool ci ak mbaax daan na wax ne ku sant Cissé day su góorloo ci mbaax mën na ko yomb ndax ak mbaaxam dafa ne ci dereetam waaye bu sàgganee nag du ko jëg defe naa sàggan jigul kenn waaye rawatina ku sant Cissé waxuñ ko nag ne dañ koo sant mbaa dañuy wax ak ñu bari ñu ko sant waaye daa fekk rek muy ñuy wax ci ko sant Cissé war a mën a indi lii ci waxtaan bi ñu xam ne kon ko xam lek bokkam doy na sëkk ñu tudd ci lu mel nii ndax sëñ Tuubaa waxantu waaye ni ki noonu it sëñ Moor nit la koo xam ne daa bokk ci askan woo xam ne ku leen xam-xam leen ci diine ak ngor ak jom ak am lu ñuy jom am lu ñuy rus wax nañ ne sëriñ bi nit wax na ma ci làmbiñam ne sëñ Touba am na bis muy doxantu fii ci njaareem ba daal di dajeeg jëmm joo xam ne mi ngi boot ay yoxoom bari na fu ma koy faral di wax ngir nit ñi gën a xam ni ñu am jëmm ja ma ngi boot ay yoxoom dajanteeg sëñ Touba sëñ Touba ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu ne ko waaleykum salaam sëñ Touba ne jëmm jooju ana yaw mu ne ko mën a alxuraan sëñ Touba ne ko ana foo bàyyi ko mu ne ko kër Ndiassé Cissé fa njaareem mooy sëñ mooy wajur sëñ Mor mii di maam sëñ Muntaxa mi di suñ maam ñu ñëpp sëñ Touba ne askan woowu de mat nañoo wormaal mat nañoo jox respe ci niñ ko mën a waxee ndax nit da ciy bokk di dund ba faatu def ñeent fukki fan ci biir bàmmeelum ci biir bàmmeelam door a xam ne moom ndakate bi muy dund daa bokkoon ci waliyu yàlla yi awliyaawullaahi loolu bu ñu koy wax rek daa doy sëkk gàttal ci xam ne baax gum baax ay bokk ci wàllum way juru bu góor waaye boo demee tam ci wàllum way jur ba ci des soxna euh, Mariama Sala Gajaga nga xam ne ñooñu ku leen xam-xam leen ci gore ak lislaam ak maandu ñu doon suñu ay bokk ci lépp boo fa demee lii ma wax fii rek nga fay fekkaat kon kooku mooy sëñ Mor ci gàttal li waral nag bis bi du lenn lu mooy nitu yàlla yëpp yëpp yëpp ñàkkul ñu am bis comme ni nga xamee bis bii dinga nga ko xamee yeneen i bis bis ca defuñ ko ngir lenn lu moy rek ne nitu yàllaa fi nekkoon ba jóge fi ñu war koo mën a wutal bis boo xam ne ci lañ koy fàttaliku donte fàttewuñ ko ca fàttaliku googu nag lenn li xëy na njariñam la moom ndax mooy ñaan yi ñuy def di ko ko jagleel waaye lenn li suñ njariña ñun li ci di suñ njariñ nag mooy danañ ci mën a tudd lenn na ci moom loo xam ne mënees na koo dégg xam ko jëfe ko mu defar suñ tey ak suñu ëllëg te loolu bokk na ci rek nangoo jaamu yàlla di ko teg ci xam-xam di ko sellal yàlla rek tax sax ci ba dem te loolu sëñ Tuubaa mi leen yar ca lañu ko jële woon sëñ Tuubaa moo bind wax ne du ma deñ di doon jaamub yàlla bu koy jaamu ba ba nga xamee ne faatu naa te di ko teg ci sunna sallallahu alayhi wa sallam sëñ Mor loolu da xamoon ndax biñ koy jox sëñ Tuubaa wax na ne fukki atam ak ñett matagul woon ci li ñenn ñi wax ñi dañuy wax ne fukki at ak benn rek daanaka ci la amoon jàppu ñaar xanaa ñett bokk wala moom ëppul woon moom waaye di lay xam ne sëñ Mor taalib bi gi mu amoon nag moom yemliwu ko kenn dañ ko koo fàggul nee na moom bi ko sëñ Tuubaa jiitee julli bis bi sëñ Tuubaa ni asalaamaaleykum sëñ Mor nee na yàlla damaa defal kashfu kashfu la wax de lii ku sëñ Mor Mbay yaral boppam moom ma ko nettali boppam mais sëñ Mor nee na sëñ Tuubaa jiite na ma julli bi mu sëlmalee yàlla defal ma kashfu kashfu mooy yàlla dindil ma kiiraay yi dox sama diggante moom. daal di may xamal ne ñeent fukki yaasin ak benn day aajo bu ci waay ñaan ma nangu ko sëñ Mor nee na ca jataay ba laa ko jàngee mu jeex. waaye la ma ca fas mooy di tàmbalee ci sëñ tuubaa di ca yem kon defe naa ak taalibe bi moom ak doyloo sëñ Touba yemale ko dara ci moom la fekk baax waaye nag am na nite day nii amul kenn ku di jullit ku dul sëñ Moor ngay mbokkam nga di jàmbur ci moom waaye bokk ngeen lislaam lu dul ne jokk na la boo demee fii ci kër gi rek gis fa ay photo yu bari yoo xam ne la muy tegtale mooy këram gi amu fa xej ji ak seen xej ak seen mooy koo xam ne bu dañ naan ko toogal ci kanam mooy xej ji seen mooy koo xam ne dafay wax ne xa may leen ma ma gis li ngeen di gis amu ci ñooñu xamu ci kenn ba ci sax ñi jàppoon ne sax duñ ay nit ci diine ku ci nekk xajal na la lay sab cër ci moom nga jël ko ndax njariñ li mu yoroon tayal ak ëllëg te nit ñi fi nekk nag nit ci tayal ak nit ci ëllëg rek ñii àdduna dong lañ gëm ñii alaaxira lañ gëm ku ci nekk nag la di sab boo dikkee mu jox ko ngir bu dajeeg borom bi wan yàlla donte yàlla xam ne lépp ne ko li nga ma joxoon lépp jox naa ko ñam ma ko doon joxloo lu ci di saahir jox naa ko ñun lu ca di baatin jox naa ko ñun baatin bis boobu nag la mbokk yu baax yi di donga yi ànd ko njaboot gi yëpp maase takkatoo di ko amal ci ñaari mbir yi mooy jokku mbokk ziyaaranta waaye ñaanal ko moom waaye fàttaliku kan mooy sëñ moor ngir bu ñu fi jógee man cee jariñu mu defar suñ teeg suñu ëllëg kooku mooy sëñ Mor Mbay Siise alxuraan nag ci la nekkoon mooy nekkoon dundam gi yëpp léppam it ci la ko def te bu fekkee delluwaat nga ci li sëñ Tuubaa wax te jukkee ko ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jàngalekatu alxuraan mooy ki ëpp ay ngañaay yum gañe ci diggam ak yàlla ci kudul moom doy na ca misaal rek muy xayrukum man taallama alqurana wa allamahu muy xadis boo xam ne bii waroom xam sax tey gëstu akus néew dégg nañ ko ba tàyyi te Sëriñ Tuubaa nee woon na moom mi mu doon liggéeyal nga xam ne du ko liggéeyal sax en direct waaye direct la ko doon liggéeyale ndax da ko daan da ko daan feeñal ci biir waxam gis naa sëñ Tuubaa kat mu ne ma demal ca la ma lay liggéeyloo foog naa ne ñu ñëpp ku ci amoon maanaam ku amoon sëñ Tuubaa ci boppam di wax ak yow direct di la wax ne la demal ca la ma lay liggéeyloo da nga xam ne gaña nga ci sa diggante moom gañaay loo xam ne ku dul yow maanaam gañewu ko ku nekku ci li nga nekk mënu koo gañe te mooy alxuraan waaye li ci gënoon a yéeme mooy alxuraan jooju da caa nekk sellal sellal guy tax nag mu dem ba am ca tër bi mu ci am fi mu nii ñii seen maam de suñ maam ñu ñii lañ tuddee sëñ Mor mii waaye boo gisee buñ tuddee sëñ Mor mel ni moo mooy maami waa Ciise gi ñëpp boobu barkee boobu bàyyi rek la ko ko may ñaar rekk la muy summiku gu maami ñi summiku ci moom jël ab cëram jox ko waaye nag moom tam pas pasu boppam boo xam ne da koo liggéey ba am ko mu téye ko muy lu ko lew doom te mooy ngërëmul yàlla sëñ Mourtada daan na wax ne ku xamoon li sëñ def fii ci kër sëñ Mor gi jar na nga bàyyi koo barab lu mu sori sori ñëw dugg fi donte génn guddi la sax nga ko fa boog wala boog nga def fa as as as ndiir bariwaa na lu nit di sàkku ci aajo muy dëgër daa fekk ñëwul fii bu fi dikkee itam bari waa na mu sàkku ko amu ko daa fekk pas-pas baa wérut waaye bu fekkee dikk na fi te sàkk ko pas-pas ba wér laa chaque ne dana ko am loolu yàlla ko fi def kër gi sëñ Tuubaa ko rëddal boppam te sëñ Tuubaa moo ñaanoon ne yàlla maa ngi ñaan fépp foo xam ne jaar naa fa wala ma toog fa dal fa mbaa ma topp fa saa borom na nga fa def na nga fa def sag leer te leerug sëñ Tuubaa mooy leerug yàlla te mboolem koo gis mujj gi demit di wutug leer leer gi muy wut génnul leerug yàlla ndeem leer gi dana jariñe tey ëllëg nawwir bi jaaxil Moustapha mamarri wa majlisi wa maskani wa birri su ko defee kon loolu mooy li nekk fii rek nekk it ci njaboot gi ñoom la leen seen maam bàyyil seen wayjur ya bàyyil leen ci loolu rek ci lañ nekk muy jàng alxuraan ak di ko jàngale doyloo li ñu am jàpp seenu njàmbur fas yéenee déggoo seeni mbokk waaye fas yéenee seq ak ñi bokkal di dund ñëpp jàmm kon bis bi daal dara sababu ko lu may fàttali ko nitu yàlla te fu ñu koy fàttalikoo daa mel ni ñu ngi jàng lenn ci alxuraan te ñu tu ndax lañuy fàttali ci moom lépp génnul yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi su boobaa loolu na day dugg ca xadis ba yonent boo xam ne amul benn mbooloo boo xam ne leen dajaloo ci néeg di jàng téere bi yàlla bi di ko fàttalante lu dul ne yàlla dana yabal ci ñoom ay malaayika ñu ñëw yiir leen di leen sécuriser waaye nag yàlla yi di leen fàttaliku wala di leen tudd ci mbooloo mu gën ñoom mañ dajee di tudd yàlla ak a fàttaliku def naa lool daal mayet na ko tënk ci gàttal bu fekkee dana doy bu doyutin nga wax ma la nga bëggaat incha allah ok wasalaamaaleykum Eh, macha allah sëñ Basiru leeral gi am na solo lool eh, sama classe gi nga xam ne umpale nañ kan mooy sëñ Mor bay Cissé macha allah eh, borom mi mbir la woon macha allah yal na ko yàlla yërëm xaare xaare ko ci àjjana ya gën a kawe ci àjjana bi jaay Seexul Xadim ak mbooleem ñoom fa fekk ak ña ko fekk xam naa sama laaj mujj mooy bis bi day fanaan wala day yendu am na cérémonie wala loolu bëgg nañ ci xam dara. xam naa di jiital ñaan sëñ Abdoul Ahad mi fii xalifaam di ñaan yàlla guddal lool aw fanam te dolli ko ak wér te defal ko mboolem njaboot gi ñëpp ñu góor ñi ak ñu jigéen damay bañ a tudd di juum ay Chouaïbou ak ñëpp rek tabarakallah soxna Aminata ak ñëpp soxna waalo mee toog moom di eh, bokk si mun muntaxaam yi lépp wajuru góor ak jigéen ak ñëpp ñu bokkal rek damay bañ eh, xóotal foofu bis bi nag daf daan fanaan mën naa ne ndax dañ daan def gis nga baas bu mag ci fii jàkkaaroog tali bi jàkkaaroog kër sëñ moor buntu kër bàjjen aji fas Cissé googu boo xam ne it dañ fa daan organiser ab cérémonie ak waxtaanu diine bu mag autorité yëpp daal fay dajeeg nit yi diine ji def fa it ay jàng si zikkar ak xasaayid dag yu mel noonu moom chaque année noonu la daan demee waaye mu mel ni nag ren ak coppeeku da cee am coppeeku gi mooy. Euh, ñu bëgg koo dundal rek dundal koo xam ne dañuy jël lañ daan def ca guddi ga ñu boole koog li ñu daan def ci bëccëg bi fexe mu xaj ci ngir ni yitte yu bare ak ni jamono xate ak lañan loo xam ne xëy na moom kilifa ga moom mooy xam dëgg-dëgg loola lu doon bu ko defee incha allahu rabbi bu ñu yewee mbooloo mi kenn ku ne mën a delluwaat ci say yitte balaa muy gën a xat ndax yitte yu bari na te ko woote kenn nag ñaar wuyu si la rek am nga ndam rawat na koo xam ne daanaka adduna bi yëpp mbaa ñu bari ñu ngi fàq jëm si si ndax sa njariñ waaye njariñul ki nga wuutu di sañ Mor siise Cissé ok. kaddu yu mu jii de xanaa mooy sant yàlla mi ñu dimbali ba nga xam ne li ñuy wax euh, mën naa am mu neex a dégg bu neexee dégg it mën naa am mu xam-xamee bu xam-xamee mën naa am mu jariñe su jariñee mën naa am yiw bi gën a yaatu ñu ngi sant yàlla moom bu baax. di julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallama di sant Serigne Touba radiyallahu taala anhu di sant ak a gërëm bu baax encore une fois sëñ Mouhamadul Muntaqa mii dafa baax rek waaye li mat a wax lépp wax na ko moo ñu gën a xam sëñ Mor gën ñoo xam maamam gën ñoo xam waajuram gën ñoo xam yi lay bés bi di début à lépp xam na ko ba fi ñu waxee nii bu ñu ci cëralee cër bu day nii sama diggante ak moom la xool ak yéene ma wuyu rek. nekkoon moom kàddu gi moom nam ko ubbee rek la ko mënoon a tëjee ñu ngi koy sant di santaat way juróom soxna Ndey Buso santaat soxna Waalo ak ñoom soxna Maam Jaara ak ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi fi teew soxna Rabiyatu ak ñëpp waaye di sant it sama mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom it ay sëriñ daar lañ di ay kilifa di ay woroomi xam-xam di ay doomi leer waaye di santaat bu baax sëriñ Abdul Ahad mi di ñaan suñu borom sàmm ko di wéral ko kilifa la goo xam ne bu ko neexoon tey fii ñu toog moo fi toog waaye ak wayam xam tax mu toog noonu làqu waaye di sant yi sama rakk ji nga xam ne Baye Modou wax dëgg xale la waaye sama rakk ndax jarbaatu si Muntaxa mi la waaye way juram wu góoram bi ko jur sama baay la wax sama baay seen ñaari baay bokk ndey ak baay ñaan suñ borom sàmm ko suñu Mbàkke Madina di wax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf macha euh, sëriñ Basirou tey moom sama classe gi liñ dégg ci sëñ moor Mbaye moom yaakaar naa umpale wala nag lii lañ ci sàkku. ndax euh, gis nañ liggéey bi mu def macha allah euh, bi ñu demee ci xalifa bi sax sëñ Abdul sëñ Muntaxa mii la ñu booleel moom lañ jëkk jël ndeysaan moom mu leeral ci euh, sëñ moor Mbay Cissé macha allah kon ñu ngi lay santaat baax di la gërëm di nuyu mboolem ñi nga àndal ñëpp rek di leen jaajëfalaat bu baax ndax ki taxawal site bi mooy vingt 28 bu ñu nee ma mooy liggéey vingt 28 arafi Touba loolu nag ay mbir la te mooy topp tànk sëriñ bi. moom fépp moo xam ne liggéeyam Sëñ Tuubaa ma nga fa rek kilifa gi moom yebal fi site bi. foofu it dama daal di kon safaat tuuti rek mooy ñaan ci barkeb suñ Moor seen site bi dem ba nga xam ne bu kenn jàpp ne mënut a nekk ndax yàlla tëlewul dara TV5 ak France 24 ak yooyu ñuy wax yëpp ba ci Al Jazeera mu dem ba faw xaleen ci waaye nag faw xaleen ay njëriñ faw xaleen ak njub faw xaleen lëggéeyal sëriñ bi ak lislaam waaye nag fekk yooyu jamono nag mu mu mu yeex mu gaaw yéen ñii fekk yéen nga ca tey gis seen bopp bu baax bay gisal ñeneen seen bopp ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak sëñ Mor Mbaye Cissé ak ay jërëjëf. macha allah jërëjëf euh, macha allah kon ñu ngi santaan mbokk yëpp euh, di gërëmaat mbokk yëpp bu baax a baax euh, di nuyuwaat bu baax soxna Ndeye Bousso Mbacke moom sëñ Abdou Fata ak mboolem ñu mu àndal ñëpp rek soxna say moom it ñoom ñëpp ñu ngi leen di. salaatu fi kulli sayrin wa fi safar